salaamaaleykum internetu Sénégal alors tey ñu dalal fi Miss Sénégal Maroc Astou Dior Astou nag gis nañ ko ci Miss Sénégal bii nii mu ñëw taaram daal ñëw xam nga rek euh, ñu xamante ak moom euh, foofu tey mu ñëw ñu toog lu waxtaan ak moom euh, ci Miss Sénégal Maroc bi nan la demee woon compétition bi comment ça s'est passé ma bàyyi la ko nuyoog internet yu salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi salaamaaleykum sénégalais tout le monde je salue tout le monde maa ngi tudd Astounar Anne Dior dëkk mhm. Casablanca nekk euh, mi Sénégal Maroc 2021 mhm. donc euh, li li waral euh, élection bi Maroc nu mu mhm. demee en fait c'était pas facile parce que dañu amoon ak situation Covid bi dañu mujjee def vote en ligne C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, euh, du coup, internautes yi ils étaient de voter via les réseaux sociaux par Facebook euh, Instagram affaire yooyu. donc vu qu'on pouvait pas faire une organisation ni quoi que ce soit. donc il a fallu que qu'on fasse euh, déjà un casting xam nga présenter miss yi xool kan mooy jàll kan moo dul jàll il y avait des des sélections il y avait des critères à, à avoir pour mhm. être miss comme le langage la culture générale xam nga ak euh, la taille bien Tout ça, ça jouait. Et avec le verdict des, des internautes, donc je suis sortie gagnante. D'accord. Ah, lan moo la dugal ci compétition bi lan moo tax nga bëgg nga bokk ci Miss Sénégal foofu. Bon, en fait, c'était pas prévu pour bokk ci compétition bi. Il y avait les copines euh, qui m'ont vraiment poussée à, à participer mm. parce que avant la première fois en 2020, je m'étais présentée mais c'était un peu tard. une semaine avant ñuy organiser fête bi la woon donc j'étais pas sortie gagnante. Mm -hmm. et les il euh, y a les amis qui m'ont dit oui tu as la taille tu as l'élocution tu as l'intelligence pourquoi pas y participer en plus tu es belle. bon j'avais pas confiance en moi ñoom ñoo ma mhm. poussé vraiment elles m'ont encouragée elles m'ont mis en confiance ñu encouragé ma pour ma bokk ci ci ci élection bi. Mhm. donc grâce à elles je suis j'en suis là. et mhm. franchement je les remercie on a habité ensemble pendant des années au Maroc. <laughs> Et euh, je leur dois aussi cette victoire, ainsi qu'aux voilà, aux, à tous qui ont voté pour moi, l'organisation aussi, e -hmm. et Evo qui a été toujours derrière moi pour m'encourager. Mm -hmm. voilà. fan la woon au Maroc seulement, mais voilà les Sénégalais d'ici pouvaient voter. Il y avait, il y avait partout, il y avait les Marocains, y avait les Sénégalais, c'était via les réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'à chaque fois bu ñu dugalee par exemple ay photos ay vidéos de présentation. donc bu ñu partagé wee il devait euh, aimer partager vidéo yi commenter ku nekk wax sa avis selon sa miss préférée mhm. xam nga donc du coup avec les avis ça compte les partages des vidéos si ça compte parce que dañuy day wane ne en fait kii mooy sa favori voilà donc euh, j'avais j'avais la les faveurs quoi. d'accord compétition boobu waxuma concours bi kan moo kan moo ko doon organiser ñan en fait euh, comité bu bi nekk mis Sénégal bi nekk Maroc. Ivo moo ko organisé mais sous l'appui de Miss Sénégal bi nekk fii nii. de Amina Badiane. Mmh. donc du coup euh, ils ont pris en charge on a eu aussi des sponsors pour ça. que Evo a cherché c'était pas du tout facile quand même parce que xam nga rek ak situation bi nu mu demee Covid bi c'était pas évident crise financière lañ nekk. Mhm. mais alhamdulilah ça s'est passé. ba mhm. gagné prix bi euh, lan la am na Euh, oui dañ naan la miss rek la euh, c'est tout quoi. <laughs> c'est vrai. Mhm. dañuy wax am na ay récompenses mais euh, comme on dit c'est pas l'essentiel pour moi. man je me dis que récompense bi pour man mooy ce qu'il y a après liñ ci war a am. parce que boo xoolee final miss bi amoon Sénégal fii nii bu ñu def le 13 bi passé au Grand Théâtre on a eu à rencontrer les autorités. Comme pour moi, j'ai eu à rencontrer le directeur général de Royal Air Maroc, qui était vraiment content que je puisse représenter le, le Maroc ici au Sénégal. Mm -hmm. Donc, ils étaient vraiment fiers de, de moi et ça m'a déjà ça m'a rendu plaisir. Ce sont des contacts de plus que je peux avoir et ça a été aussi un sponsor principal de Miss Sénégal Maroc. Donc déjà, ça c'est en plus pour nous, ouais. pour, euh, pour les voyages et tout. Euh, non seulement ça, aussi j'ai eu à rencontrer le DG de Africa Tourism Board. Mm -hmm. Déjà, on doit se faire une rencontre, je sais pas quand est que, mais bon, ça va se faire. Déjà, ça, sont des appuis de plus. Mhm. Voilà, il y a des contrats peut-être qui peuvent, euh, qui peuvent être euh, signés dessus, on ne sait jamais. Il y a aussi euh, le journaliste euh, François Durper qui était là présent, oh, donc on a eu à échanger. Mhm. Et c'est Euh, c'est un présentateur télé sur France 24. donc euh, voilà il y a beaucoup de débouchés c'est pas que aussi prix bi ñuy wax gagné nga oto gagné nga lii ak lii moi je cherche pas ça je cherche encore plus haut comme li ñuy waxee. am ay voilà effectivement. voilà ñëw Maroc xam nga en plus pourquoi déjà ñoom fait billet bi ils ont ah, tout pris en charge le logement sur King Fahd Palace la nourriture tout tout tout tout et qu'est-ce fait d'être Miss Sénégal nan nga war a doxee biir Maroc nag. xam ne ñoo am base am classe yaa ngi nii tegale say taal. dégg nga xam naa marocain yi dinañ fa nekk naan waaw suñu Miss sénégalaise bi euh, na. c'est vrai am na ay compliments derrière. surtout au travail de la part des amis surtout que je remercie. Mm-hmm. xam nga de la part des Marocains parce que aussi ils ont dit que bon c'était pas un mauvais choix c'est un bon choix qui s'est fait. Mm-hmm. donc euh, boo nekkee Miss c'est vrai que da nga war a am benn charisme da nga war a am benn niveau d'intellectuel waroo nekk koo xam ne voilà ne waxuñu waxuñu nga nga sauvage mais au moins nga nekk koo xam ne da ngay présentable mm. quel que soit l'endroit où tu vas te rendre donc du coup ça aussi c'est très très important Et euh, voilà, donc il faut l'intelligence, l'élocution, le, le langage. loolu yëpp dafa bokk ci Miss xam nga. Hmm. ya nekkul nekk rafetaay bi kese de day yomb. xaw <laughs> mais yow pour yow lan moo tax nga gagné. pour man li tax ma gagné déjà la beauté elle était là. oui bon je me trouve pas aussi belle comme on dit parce que man. ah man tout le temps damay xew sama bopp. séeréer nga moo tax ma wax de mais. moom nangul naa la ko moom. séeréer bu rafet. waaw séeréer bu rafet la ko en plus de Joal Fadiouth bu jóge ba Joal Fadiouth. raar na <laughs> raar na donc du coup euh, lii man li tax euh, ba ma gagné déjà je me dis que j'ai une bonne éducation. loolu ça compte. Mhm. la personne. y la personnalité parce que aussi dañ lay observer xool ban ban façon nit nga. Mhm. est-ce que tu es quelqu'un de respectueuse est que nekkoo di di di def ay fu ñaaw ci ci ginnaaw parce que nit ki tamit doo nekk miss ba pare après di comporter woo yenn façon yoo xam ne c'est pas du tout joli mm. parce qu'on est appelé à être des personnalités derrière on est appelé à être la voix porteuse des autres Sénégalais au Maroc xam nga voilà donc vu que j'ai euh, j'ai été élue je me suis dit je me suis dit que voilà j'ai euh, ce qu'il faut pour être miss voilà mm-hmm. est-ce que amoon na benn cause doon défendre si si élection wala est-ce que laaju ñu la loolu par exemple fii buñ ne laajee lan nga bëgg naan je veux aider enfants nangam taa nangam bi <laughs> ça se comme ça quoi mais là-bas est-ce benn cause boo xam ne dinañ leen ko attribuer au di ngeen mën a défendre cause boobu oui parce que souvent dañu wax les aides sociaux et mhm. mais man man sama cause principale je l'ai toujours dit mooy euh, l'entrepreneuriat sénégalais xam nga jigéen ñi dañu war a bokk ci fonctionnalité commerciale ku ku nekk da ngay am sa projet bopp moi aussi je suis dans un projet et je veux que ce soit meilleur que ce que j'envisage donc du coup loolu mooy sama cause principal jigéen bu nekk bu amee base rek dañ ko war a appuyer pour mu dem plus haut donc moi ça c'est ma cause en fait voilà alors nan nga gisee élection Miss Sénégal fii nii ba nga ñëwee assister ko xool mhm. organisation bi nan nga gisee exactement c'était vraiment bon c'était vraiment parfait mhm. parce que déjà euh, organisation bi baax na on a mis à, à la disposition des Miss des voitures pour tout déplacement prise en charge bi habillement maquillage on a été maquillé par euh, Tar euh, comment ça s'appelle déjà euh, Tar c'est une Tar Institut mhm. donc vraiment ils ont fait du beau boulot parce que woowuñu n'importe qui déjà loolu rek c'est c'est quelque chose waxatuma la nag fi ñu daloon King Fahd Palace c'est pas n'importe quel hôtel et en plus euh, concernant organisation bi ça s'est bien passé boo xoolee euh, seen euh, seen sélection bi c'était vraiment chaud parce que boo bi ñuy délibéré ils avaient du mal à déterminer qui serait la gagnante et wax dëgg yàlla ils ont pas démérité mm -hmm. ils ont toutes été vainqueurs et euh, c'était l'essentiel mm -hmm. voilà man <laughs> dina xaw a métti bon j'avais un avis pour Miss Saint-Louis bon bon Je pensais qu'elle allait, euh, qu'elle allait finir première, mais Alhamdulillah, elle était parmi les trois premières. Elle n'a pas démérité non plus. Mm -hmm. Et je félicite, félicite, aussi au passage la Miss euh, Dakar qui a été élue et la, la troisième dauphine, la deuxième dauphine. Donc du coup, euh, voilà, c'était un très très bon choix. Elles ont eu la taille, elles ont eu ce qu'il fallait pour l'intelligence. Voilà, et voilà, le punch, elles ont euh, <laughs> du jack. Feeling B, Feeling B. Mm -hmm. Et ce qui m'a le plus marqué, moi, euh, les tenues surtout. la, la, le dernier passage avec les tenues, euh, les tenues de soirée, qui a été faite par, Versailles. C'était du temps, du temps. <laughs> Mhm. Voilà, donc ça c'est vraiment, bien. Est-ce que vous avez tamit ben jour nga ñëw Sénégal na bok ci Miss Sénégal bi fi compétition? Bon, c'est jamais ça se pourrait des xamaguñu des peut-être. Anté wu la gis nak yow loo ci xalaat yow yow yow gis nga ñëw rek nga ne xaaral. Uh-huh. est-ce que du ñëw fii sax déwén bokk ci. Mm. ah bu ñu amaatee bu ñu la. Ah, baax na de séeréer bi ah, baax na de ah. hmm, baax na de gis naa loolu gis nga loolu séeréer baax na leen ko de mën na ko ci xalaataat <laughs> xalaat nga ko quand même. oui envisageable on sait jamais peut-être d'ici l'année prochaine bu fekkente ne c'est faisable bon pourquoi pas on va voir. Mm-hmm. est-ce que Miss Sénégal war na war na ñaaw. parce que amoon na ñu fi doon waxuma dañoo ñaaw nag mais euh, xawoon nañ leen critiquer yow yaa ngi doon suivre mm, tamit critère boobu noonu war nañ ko ci boole. bon comme ni ñuy wax rek ku nekk am nga sa critère de beauté. Mm-hmm. donc man je vais pas critiquer parce que xam nga. critique pour man c'est pas c'est jamais c'est tout négatif toute critique est positive parce que daf lay gën a defar mm-hmm. xam nga ku nekk da nga am sa critère de beauté on n'est pas tous pareils par la manière de penser mm-hmm. donc du coup j'ai pu suivre en fait euh, le, le Miss Sénégal bu daaw bi sur 2S euh, sur euh, Facebook mais bon ça va je dis alhamdulillah elle est sortie gagnante ça veut dire qu'elle avait en plus que les autres n'ont pas eu mm. voilà c'était pas du tout facile mais au moins elle a pu supporter les critiques et tout et je me dis que ça c'est bien c'est une battante elle est arrivée jusque là on doit l'encourager et voilà elle va aller de l'avant incha allah. d'accord mis à part euh, lii nii compétition parce que xam naa ne passion la nii rek buy jàll la mais lan ngay yëngatu foofu noonu au Maroc da liggéey da ngay jàng. Mhm. xam un peu Astou nu muy liggéey foofu. en fait waaw damay damay liggéey. Mhm. dama nekk euh, ci benn centre Intelsia. Mhm. télécommunication donc je suis dans la télévente pour Intelsia SFR France. donc ñun euh, man basé naa foofu depuis pratiquement trois ans je bosse j'ai un bon vu que milieu télécommunication daf ma neex xam nga échange nii rek ça me fait plaisir d'échanger avec des personnes même si je les vois pas c'est hors euh, c'est pas face à face hein c'est des clients qui sont en France par exemple et le fait d'avoir cette communication directe ça me met à l'aise donc du coup de, le fait de vouloir échanger avec cette personne là ça fait du bien apporter de l'aide à la personne et tout ça fait de la vente en plus donc ça va je bien à voilà. alors sénégalaises yi nekk foofu nan la ñuy dundee nan nga gisee cette situation foofu noonu. bon c'est pas facile aussi pour certains bon dañuy xam nga am na ñoo xam ne dañuy jéem a daan seen doole comme ñun ñi nga xam ne parfois on arrive à s'en sortir parce que dañoo am contrat. booy liggéey da ngay fay sa loyer tu as le le loyer à payer les charges les tax boo feebaree yow yaay jël sa bopp en charge. Mhm. mais am na sénégalaises yoo xam ne boo leen gisee nga xam ne dañuy daan dëggantaan seen doole par exemple boo demee marché marché Médina tu vois des sénégalaises dañuy jënd ay produits yi ñëw di fa jaay nga xam ne kii moom bu la sonalee rek nga xam ne am bëgg na dara ci ginnaawam elle essaie de faire de son maximum pour avoir le meilleur pour elle. Mhm. donc xam naa ne ñooñu aussi bu ñu leen jàppale woon tuuti rek ils vont aller de l'avant c'est que foofu boo si tu n'as pas le la carte séjour du jàll te carte séjour bi pour l'avoir dañ lay laajte pour nga am euh, comment ça se dit le contrat de bail ce qui n'est pas du tout facile parce que déjà le loyer est cher parfois des fois da nga ciy daal fois doo ci daal donc on est obligé de se faire des colocations pour pouvoir s'en sortir mais alhamdulilah ça va si tu as un bon salaire tu arrives te débrouiller nga suturaal sa bopp voilà donc du coup il y a ça donc il y a xam nga ne bu ñu waxee loyer moom xaalis la ñuy wax. Mhm. il y a aussi le comment ça se dit hormis le contrat de bail euh, on te demande xam nga. yaa a beaucoup de choses qu'on demande voilà te carte séjour bi boo ko amul du la ibbil yeneen buntu pour def yeneen dépôt liggéey yi nga xam ne ñoom ñoo gën a fay mais l' avantage aussi que nous sénégalais on a c' est que au Maroc dañu am benn partenariat avec le Maroc donc le sénégalais est prioritisé au Maroc. moo tax yenn saa ci yenn centre d' appel yi. ñoom dañuy prioriser les sénégalais avant ñu jël yeneen nationalité ñoom déjà le début dañ la koy wax est-ce que vous êtes sénégalais ou pas ça passe facilement. d'accord ça c'est un atout de plus qu'on a aussi au Maroc. Mm-hmm. mais est-ce que mos ngeen dund racisme parce que dañ naan foofu. Mm-hmm. naar yi dañoo xaw raciste. Mm-hmm. Euh, ah, am na sama benn sœur dund na ban tu es belle comme une poubelle loolu lañ ko fa jàmm foofu noonu biir Maroc mais est-ce que loolu c'est vrai réalité boobu am na fa est-ce que yow tamit mos réalité racisme moom am na fépp. c'est vrai am na au Maroc je l'ai vécu personnellement. lan la ñu euh, waxoon man dañ lay traité de asia asia bu ñu la waxee asia foofu mooy euh, nit ku ñuul peau foncée am na ñoo xam ne mooy loolu. man j'ai une copine boo xam ne avec elle on a habité ensemble bu muy soog a dugg ci Maroc. am na benn naar boo xam ne daf ko daf ko tufli mais bon moi je me dis que c'est l'éducation c'est pas. nekkul ci ci seen nature baax c'est l'éducation li ñu leen di inculquer à la base moo tax peut-être noonu la ñuy màggee mais ils sont pas tous comme ça parce que tu rencontres des personnes bien au milieu du travail même ñoo xam ne ils aiment bien les Sénégalais et ils le disent moi j'aime bien les Sénégalais mais am na ñoo xam ne seen mentalité foofu la yem da ngay romb ñu naan la Asia wala ñu naan la luñ lay wax sax comme euh, woykat bi euh, ki nekk France jaja loolu lañ lay wax ah je te promets parce que tu peux passer dans la rue on te dit n'importe quoi parce que bu ñu gisee xam nga foofu dafa am deux types de peau les peaux foncées qu'on appelle les ak les peaux claires xam nga mm-hmm. donc ñoom euh, bon pour certains ñi nga xam ne seen mentalité foofu la yem sahraouis ils ont pas comme s'ils avaient pas le droit d'avoir plus haut quoi. Mhm. parce que foofu des fois da ngay gis euh, si tu as si tu as un peu les moyens rek. affaire daf leen di jaaxal le fait que tu habites par exemple dans un quartier un peu chic par exemple à Belvédère là où j'habite mhm. pourquoi tu n'habites pas par exemple à Ferdaous ou à pourquoi je vais habiter là-bas j'habite à Bel... à Belvédère certes c'est cher c'est bien et je suis à l'aise mhm. c'est comme si toi t'as pas le droit d'habiter dans les quartiers chics mais ça va alhamdoulilah donc euh, voilà yoruma xaalis ah. bi damay débrouiller rek. non c'est pas quartier quartier chic mais au moins c'est un quartier euh, voilà bien euh, voilà. Mm. <laughs> naa fa ñëw. waaw naa la invité. alors kontaan nañ ci ci dalal la ban ban message ngay lancé pour pour sénégalais yi pour mm. voilà. donc euh, li may wax en fait mooy ku nekk am nga sa but. Mm-hmm. donc faut pas baisser les bras faut pas laisser passer les critiques parce que critiques yooyu noonu même si c'est négatif dis-toi que c'est toujours positif pourquoi. Mm-hmm. parce que critique nekkul di la yàq daf lay defar. lu mu métti métti au moins di nga ci jàng benn leçon à chaque fois bu ñu amee benn but. qu'on aille de l'avant. C'est pas c'est pas toujours négatif. Moi, certes, critique yombul parce que tout le temps on se dit oui, peut-être qu'il dafa soxor moo tax moom may wax lii. Mais on va se dire tout le temps que si cette personne nous a donné en fait cette critique un peu négative, peut-être c'est une éducation pour nous et ça va nous pousser de l'avant. Donc ku nekk na nga xam bëgg li nga xam li nga bëgg te euh, chercher toujours à aller plus haut. Est-ce que mos nañu critiquer mu metti la? Pardon? mu metti la. am na waaw mos nañ ma critiqué bu mais xam nga du ñëppay critique ah. mm-hmm. je suis pas parfaite parce que des fois dañ may wax yenn remarques yi après damay énervé wu. comme lan. par exemple euh, toi tu es trop farfelu par exemple. Mm-hmm. farfelu bi dama koy nangu mais je me dis que aussi c'est un atout de plus parce que pourquoi. je me dis que c'est pas tout le monde qui est comme ça ouverture bi ma am peut-être moo tax ba ma am yenn relation personnelle yi ak nit ñi donc du coup dama koy jéem a positiviser. Mm-hmm. et ça m'amène bien ça m'amène loin pourquoi parce que ñenn ñi oui tu es souriante farfelu boobu noonu moo tax j'ai eu une relation vraiment sociale avec les gens. Mm-hmm. et c'est en plus pour moi. alors question bi yëpp. mun yëpp intéressant mm-hmm. dëgg yàlla euh, réponse yi macha allah <laughs> mais ñi intéressé am na ñoo xam ne benn question moo leen intéressé ah. Astou est-ce qu'elle est célibataire ou mariée kii ku ñëw ñu laaj xam naa loolu rek la xaar li ñëw ci yëpp intéressé intéressé na mais. ça ça va être compliqué bon je vais D'après, d'après vous, euh, je suis célibataire, je suis, j'ai l'air d'être une personne euh, en couple ou célibataire ou... ah journalisme nga bëgg a def. allo. Ah <laughs> dama la bàyyi question. yoon laa laaj célibataire nga wala bon en couple. comment dire maribataire quoi. maribataire ba ci maribataire bi. <laughs> kon kontaan nañ trop. ci dalal la. ñuy ñaan nag nga ñëw fii nag bokk ci compétition bi. boobaa ñëpp ay voté voté leen incha allah d' accord incha mm-hmm. merci kontaan merci ci accueil bi franchement c' est un plaisir pour moi. Mm-hmm. à bientôt à bientôt.